sëñ Babacar moo fu mu daan julle moom sëñ Babacar waaw ci Tiwaawa ci fan ci Tiwaawa ci kon jàkka la daan julle mais fan ci kon jàkka jàkka ah? jàkka est-ce que ci julli boo demee aéroport sa bagage ëpp foo koy yóbbu fret foofu nga koy dénkaane ji est-ce que lii mën na dem ca kaw jëmm ji jëmm ji dañ koy consigner si jàkka ja ruug yi dem wax ak borom mu dellu see foofoo julli waaye ki génnul jàkka ja toog di dégg li si jàkka ji demul fenn mag ñi dañ daan consigner seen jëmm yi ci biir jàkka ji ndax jëmm ji ci suuf la jëm seen ruux mooy génn ci ñoom ñu dem di bokk ci délégation bi wax ak yàlla dellu si moo waral asalaamaaleykum waaye demoo fenn bëgg a nuyoo kan ngay nuyu ba tax maal asaf ah sa ruux noo koy yabalee léegi boo da koy da koy da ngay taw da ngay da ngay teewlu boo teewul li xam ni kenn rek fi nekk moo tax boo bëggee kabar boo defee boo geesoo mu ne la ilaa man taltafitu yàlla boo kabaree nii allahu akbar nan nii mu ne ilaa man taltafitu ilaa xayri min nii ndax dafa am ku ma gën ci yow ba nga geesu man yàlla bàyyi ma ci sa kanam tax Sénégal a ngoog Sénégal a ngoog mais li ñu yàlla ubbil dafa bari kii ñu nekkal fii ragal yàlla taxoon na deg dex gu mu teg tànkam jasi gi génn abal ko moom ngeen denc fii est-ce que kooku dafa sukkandiku ci alaaji Malick Gaye maamam sukkandikuwul ci alaaji Gaye maamam dafa jëf comme li ñëpp di def ba am li ñëpp di am moom ngeen denc fii ci biir kër amul benn tâche bu sëriñ Moustapha ma si am benn benn mbag yëpp accord d'accord lañu ci loolu tabaarakallahu ngeen am ko nag mu jur leen ñi ñu far nekk ak yéen kenn ku nekk def sa moroom muy sa muy muy yow ngeen di ànd ànd bu rafet bii